ni jarbaat dana nu gàgganti doom dana nu gàgganti tabarkalla tabarkalla te loolu mag ñaamuñu ko woon mag ñi ñoo daan gàggante Cheikh El Hadj daf daan def bu waxtaanee ci jàkk ji ba noppi lu ko yitteel daf daan wax ni bu ma waxtaanee ba noppi damay yëg ñaari réaction ci mbooloo yi mooy dafay am ñu naan ku góor gi doon wax xanaa ñooñu génne nañ ci seen bopp <laughs> ku góor gi doon wax ñi ci des ni ah góor gi tey tey dafa tàngat mu ni ñooñu sax nag ñelee leen tane waaw góor gi dafa tàngat rek mooy yaram wi neexul pour wax leen ni àdduna moom noon rek la ma sa mel yonent bi loolu da daan tawat ñàkk dégg te sëriñ Babacar dafa daan wax ni Maodo nekk na fi ba jóge fi musul jëfëndiko wilaya xel mu rafet rek rekk wilaya am ëpp ne nit ñi da ndegam xelam mo leen ëpp waxuma la wilaayam mu ni may itam fa su yene jëfëndiko wilaya xel rek lay jëfënte ak yéen waaw moo tax xel mu rafet defar na aduna defar al akhira xel mu rafet defar na aduna defar na al akhira boko amé ci sa kilifa am ko ci sa serigne sante yàlla rek mo war boo ga me ci sa kilifa am ko ci sa serigne sante yàlla rek mo war ah dafa fekk lo bayyi wal xel do ko am waaw dama ma setti sama benn wëllëre Amadou Lamine Dafe bokku nu am tariqa waaye daan nañu waxtaan ci turu yàlla ndax ku soppon turu yàlla la dan na ñëw fii ndax mi ngi bok ci al qadiriyya waye dan na ñëw fi sëñ babakar diko jox ay tour wala mu jox ko Serigne Saliou sar mu yobul ko ko ku bëggoon tour yàlla la ak kurus daan naa di dem kërëm dem fa bés fekk fa ben mag xam naa nag mu def yëfu borom xel ndax bëggul mag mi wax musiba ndax dafa tàmm dégg musiba ci làmmiñu mag mi musiba mu jëm ci sëñ Babacar si mu bëgg ko won nag ni ko kii Cheikh tiijan la bu ko defee góor gi dootul ñeme wax musiba jëme ci sëñ Babacar daga laa ak si nuyu ko rek mu daldi di ni góor gi eh, nuyul kii Cheikh Tidiane la eh, ku amoon xel la tabarkal daldi gis góor gi ñaawal kanam gi lool toog ba mujj mu ni ñun ñiy Maodo yar daldi tàmbalee foofu bu ñu la bëggee kepp foofu lañuy ñuy tàmbalee te xamuñu ni sëñ Babacar leen gën a xam Maodo waaw mu ni ñun ñi Maodo yar daldi commencé di sànni ay flèche ñun ñi Maodo yar ba mu àggalee ma ni ko yow de Maodo yaru la mu ne man Maodo yaru ma ma ni ko mukk ma ni ko ñi Maodo yar ñëpp xam naa leen te yow xaw ma ma ni ko kon danga nga yaroo kër Maodo waaye Maodo yarul la waaw ma ni ko du benn mu ni pat ma ni pat pour wax la ni li góor gi daan wax bu leen jàng xuloo waaye di leen jàng tont moom rek mooy li am solo waaw ay jamono moom doo jàng xuloo tont rek moom ngay jàng waaye mag ñi Maodo yar kay li nu nekk ndaw yëpp xam nañ leen waaw ni nu xamee sëñ Babacar lañ leen xame yàlla xam na ko mu mel ni kon nag ci lool rek la ñuy jafandu jamono neexul waaye nuy ñaan di ci boole di taxaw di ci boole di am yitte di ci boole a ah, te itam di gën a ànd ak sago ci daje yi gën a ànd ak sago ci daje yi kenn ku ne di may sa moroom mu jàll kenn ku ne bu sa moroom bëggee wax nga déglu ko ndax déglu ci teraanga la bokk may sa mbokk mu jàll ci teraanga la bokk te yooyu nag ëpp naa sàggane ci biir jamono baytul wilaayati bi faaxu zalaam wa miftaaxul xuluusi wa xatmul xuluusi